sawer diwi waaju ko jël sawer diwi waaju ko jël danga xalalaab moolu waatu wul di la faab léeg la baale ko xutbul maam Cheikh Tidiane yaa seyxana taajul aarifiina sërif baa nga tudd faa Cheikh yow mi kay bañ ak di ko jëw Cheikh Tidiane yow mi kay bañ ak di ko jëw ak texe di ñëw na fi yow loo falang falang dina ñëw gaawal daw te tuubi ko xutbul maktub maam Cheikh Tidiane yaa seyxana taajul aarifiin sërif baa nga tëdd faa